waj'al kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu aq di ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ñu ko baaxoo ànd ak ci ay bu ne di fàttalente ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu te ñu doon ànd ak yéen ci suñu bind yi weesu yépp doon jàngatandoo ak yéen téerab sëriñ bi radiyallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde Munawwiru Sudur te suñu bind bi mujj ñu taxawoon ci ci e, dog bi nga xam ne moom la sëriñ bi e, bind jagleel ko ab xol Euh, ci ni nga xam ne noonu lañ ko war a laabale ci lépp loo xam ne ñaaw ñaawteef la waaye li nga xam ne noonu lañ ko war a waajale ci lépp loo xam ne lu rafet la ñu jim ko ci euh, di ko ci fas mu mel ni sëriñ bi radiyallahu anhu doon nañu moytandikuloo feebar yi nga xam ne day dal ab xol te mi feebar yu bon yoo xam ne ab jullit war na koo moytandiku waaye su fekkee ne moytandiku na feebar yooyee su ko defee xol bu sell lay amee tey it loola dina ko dimbali ci gën a mën a topp yàlla waaye dana ko mën a dimbali ci jëflante gi nga xam ne moom lay jëflante ak moroomi euh, jullitam euh, waaye ak mboolem ñi nga xam ne ñoo euh, ñooy dund ci jamono ji mu mel ni feebar yooyu limoon nañ ci ñeent yi nga xam ne xol da koo jagoo te mi kiñaan waaye ngistal ak rëy ak li nga xam ne mooy euh, soxot yooyu yëpp ay feebar la yoo xam ne euh, mën nay gaar nit ki te it ay feebar la yoo xam ne feebari xol la kon nit ki war nay fexey di euh, jaayante ak bakkanam di xeex ak bakkanam waaye di xeex ak li nga xam ne moo di ab xolam ba loolu nga xam ne mooy jikko yooyu nga xam ne ay jikko la yoo xam ne ab julit waru koo jikkowoo mu fexey ba mucc ci kon day mel ni suñu bind bi mujj foofu la ñu taxawoon ci fi sëriñ bi di waxe ne nañu xam ne e, ngissal moom bokkaale bu ndaw la ngissal bokkaale bu ndaw la te képp koo xam ne ame nga ko moom ngissal nee na xam ne ci torox rek lay mujj képp koo xam ne bàkkaar boobu wala jikko jooju di ngisal amee nga ko na nga xam ne ci torox rek ngay mujj ndax li tax ngay torox mooy euh, ci àdduna man ngay jëf euh, di ko won nit ñi ñu koy gis waaye ëllëg boo demee ba jàkkaarloo ak suñu borom bi subhanahu wa taala soo taxawee ne ko lii laa doon jëf bi euh, di sàkk suñu borom subhanahu wa taala mu fay la bu boobaa foofa doo ko fekk genn fay ndax suñu borom daf lay delloo ca nga xam ñoom nga doon euh, gis salal sa jëf yi nga daan jëf su ko defee mu ne la demal ñooñee fay la te bu boobaa euh, pertangi rek nga cey jële toroxtangi rek nga cey jële kon képp koo xam ne dangay jëf ba pare di ko di di ko jëf te ngisal rek tax euh, lu mu yàgg-yàgg ci torox rek ca ngay mujj foofu ñu tegoon suñu loxo sëriñ bi di continuer ba tey rek di wax ne laa yanfa'u al ilmu du jariñ al ilmu xam-xam wala la amal du caagee ne jëfe xam-xam maariyan ànd ak ngissal fa man képp ka nga xam ne xawaahu làq na ko mboom ngissal fa jamaa boole na addurra boolem lor yi sëriñ bi radiyallahu anhu nee na euh, li nga xam ne mooy xam-xam ak jëfe xam-xam day du jariñ nit ki feek mi ngi koy def te jikko jii di ngissal ko ak moom nga xam ne lépp léppam daf koy wéer ci ngissal day jëf li muy jëf di jëf ju rafet mu koy teg ci xam-xam muy jëf joo xam ne man naa jariñ mboolem nit ñi waaye la nga xam ne mooy yàq jëf jooja mooy ngissal la nga xam ne moom la ko booleel kon jëf lu mu rëy rëy jëf lu mu tegu tegu ci xam-xam jëf lu mu rafet rafet rafet te ngisal mucc ca rek day mel ni jëf jooja mook xaba euh, an mansura mooy pënd bu nu wesaare daanaka ñoom ñoo yem du amal borom njariñ waaye du amal borom. Euh, lenn loo xam ne man la koy man na mën na koo jariñ ëllëg yowmal xiyaam ndax la mu am rek mooy gis da ko nit ña di gis euh, di ko ca sant waaye la ca euh, nekk ci diggante ak boromam mu ko cay yaakaar ci ak pay moom boo lëggee pertan rek la cay jële kon loolo tax sëriñ bi ne xam-xam day ak jëfe xam-xam du jariñ nit ki mukk li feek koy ngistal mi ngi tàqoo ak moom li feek mi ngi jëfe xam-xam mi ngi am xam-xam ba pare di ko jëfee waaye nag euh, dafa amee jikkooy ngisal nga xam ne su koy jëf ngistal mooy ànd moom na xam ne kooku na xam ne loo xam-xam boobee ak jëf jëmi jëf loole lépp mënu koo jariñ dara ndax ngisal ga nga xam ne moom la cay moom la cay euh, ngisal kon lépp loo xam ne moom la nit ki di jëfe bu fekkee da ngay dimbali ñi nga xam ne ñooy jaami yàlla yi ci lu mu man di doon fexeyal ba soo koy joxe ci sa loxoom day joor bu ko sa loxoom càmmeñ yëpp waaye fexeyal ba lépp loo xam ne moom ngay def ci lu baax nga def ko ci ak sellal waaye bul ko def ngir bëgg nit ñi tàgg la ci bul ko def ngir bëgg nit ñi ci sa daraja ndax loolu lépp saa boo xamee ne am na ci jëf rek day yàq jëf ja waaye day tax nit ki di jikkowoo li nga xam ne mooy gisal di bëgg nit ñi di gis li muy def te bu boobaa loole mën naa yàq jëf ja nga xam ne euh, moom lay jëf ndax nit ki saa boo xamee ne jëf na euh, fexey ba seytaane muccal ko ci gisal Euh, seytaane dina dugal ci xolam ak rëy mu yëg ne moom mii li mu jëf dafa rëy su ko defee loola it mën naa yàq jëfam ba tax na jullit bi euh, li mu war a euh, jikkoo fu mu toll mooy toroxlu te lépp loo xam ne moom lay jëf mu koy jëf ci ak sellal bañ caa dugal lenn ni ngistal waaye bañ koo def ngir kenn def ko te jëm mi suñu borom bi subhanahu wa taala rek tax ndax seriñ bi radiyallahu anhu nee na képp koo xam ne jikko jooju di ngistal day làq nga ko na nga xam ne lépp lu di euh, euh, toroxtaange lépp lu di ay lor na xam ne euh, yow yaa ko dajale yow yaa ame amee mu ne laa tax su dan na lu jublu laa tax su dan na bul jublu xayra rabbi tawli lu dut yàlla mi borom xéewal fii kulli shaayin ci jëpp jëf maa kulli xawlin ak jëpp wax sëriñ bi bul jëf dara wala ngay wax dara te jubluwoo ci lenn lu dul jëmmi suñu borom bi subhaanahu wa taala rek tax lépp looy jëf ci lu baax euh, lépp looy jëf ci loo xam ne njariñal mbindeef yi la lépp looy wax ci lu baax loo xam ne njariñal mbindeef yi la ak euh, njariñal jullit yi nee na nanga ko def rek te jëmmi yàlla mi nga xam ne mooy borom xéewal rek tax waaye bul ko def de euh, bul ko def ngir kenn waaye def ko te jublu ci jëmmi yàlla rek moo tax sëriñ bi ne bul jublu ci jenn jëf jooy def wala jenn wax jooy def bu ci jublu kenn ku dul yàlla mi nga xam ne moom mooy xéewale kon nit ki euh, loolu mooy tegtale ne lépp loo xam ne moom lay def rek te jiitalu ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala saytaane mën na caa dugg te bu ca duggee mën na ko caa dugalal euh, jikko joo xam ne mën naa yàq jëf janga xam ne euh, moom lay jëf mu ne nag laakin na waaye nag za loolu mu la wax ne lépp looy jëf na nga ci euh, jublu suñu borom wala lépp looy wax na nga jublu jëmmi suñu borom subhanahu wa taala rek nee na tariquhu aw yoonam taw mutawwalun lu ñu guddal la saalikuhu aji soobu ko muawwalun euh, euh, aj ku ñu sukkandikoo la alal ali ca yàlla ma nga xam ne mooy aji màgg moo tax mu ne saalikuhu aji soobu ko de mu muawwalun aji sukkandiku la alal ali ca suñu borom subhanahu wa taala képp koo xam ne yaa soobu yoon woowu nga xam ne looy jëf ak looy wax suñu borom rek nga ciy gis doo ci gis nenn mbindeef doo def dara ngir mbindeef doo wax dara ngir mbindeef looy def suñu borom rek moo tax nga koy def nee na loolu day yoon wu gudd a gudd la loo xam ne képp koo xam ne yaa nga ca day mooy ki nga xam ne ci suñu borom rek rek lay sukkandikoo euh, lépp loo xam ne daf koy wax wala lépp loo xam ne daf koy jëf. kon foofu mooy dara jaay ixlaas dëgg-dëgg mooy nit ki euh, fexe ba léppam sell nga xam ne lépp loo xam ne moom lay jëfati wala mu koy wax du ca gis jëmmi kenn waaye jëmmi suñu borom bi subhaanahu wa taala rek moom la cay gis moo tax sëriñ bi ne laakin na waaye euh, di jëf mbir ba pare te jëmmi yàlla rek tax wala ngay wax mbir te jëmmi yàlla rek tax za muy loolu tariquhu aw yoonam mu tawwalun lu ñu guddal la saalikuhu aji soobu ko muawwilu suk aji sukkandiku la alal ali ci suñu borom bi subhanahu wa taala képp koo xam ne yaa ngi def loon day euh, sa jëf ak say wax lépp ci suñu borom bi subhanahu wa taala nga koy sukkandiku moo tax mu ne laa yaqdiru du attan almiksaalu aji tayyeel wal mubahriju ak aji caaxaan alayhi ci aw du mukk Euh, laxataraaka yàlla bum la gaar xarajun ay bàkkaar ne na waaye na nga xam ne loolu day euh, lu diis la loolu day képp koo xam ne euh, da ngaa tayyal wala képp koo xam ne ab caaxaankat nga loolu doo attan kon yal na la suñu borom subhanahu wa taala musal ci njuumte waaye yal na la suñu borom subhanahu wa taala musal ci ay bàkkaar kon loolu ku sawar ci diggantem ak boromam koo xam fexey na ba not bakkanam ci lépp lu di caaxaan kooku rek moom la ko suñu borom subhanahu wa taala di dimbale kon nit ki bu fekkee ne bëgg na lépp lu muy def wala mu koy jëf mu dëppoo ak li suñu borom te mu jëf ko suñu borom rek tax euh, li nga xam ne mooy tayyeel ak caaxaan yooyu yëpp daf koy sori su ko defee ak xolam mën a sell ba lépp loo xam ne moom lay jëf da koy delloo ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala moo tax bi ne euh, képp koo xam ne soobu nga yoon wee day Euh, na nga xam ne soobu nga yoon wu baax waaye yoon woowu nag yoon wu jafe la te kenn koo xam ne danga ngaa wala kenn koo xam ne at ab caaxaankat nga doo mën a euh, soobu yoon woowu ndax lan ngir caaxaan yi nga xam ne moom ngay caaxaan ak tàyyeel gi nga xam ne moom ngay tàyyeel moo lay takkasal ba doo mën a soobu yoon woowu sëriñ bi ñaanal la ne lépp loo xam ne mooy bàkkaar wala lépp loo xam ne moo lay sa digganteeg sa borom day yàlla nala la teggi yàlla bum la gaar kon su fekkee nit ki bëgg naa attan loolu bëgg a yoon wi nga xam ne mooy yoonu ixlaas yoon wi nga xam ne bëgg naa selal ay jëfam di ko rafetal te koy jëf digganteem ak boroomam bi subhanahu wa taala rek faw li nga xam ne mooy tayyeel ak ay caaxaan daf koy moytandi ko bu baax a baax te uh, sori kon ñi ngi tuub bu baax tey jéggulu di wàcce foofu suñu kaddu din wax ne in uridu illa al islaaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu على الصحابة وسادات كلهم رضوان رب الأراضي والسماوات على الصحابة والسادات كلهم رضوان رب الأراضي والسماوات